jërë jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen eh, ziare di jiital eh, ci nuye bi ak ziar bi Cheikh mun Mountakha Mbacké di ñaan bu baax suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram bu baax niki noonu la ñuy jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak ñun moo xam fii ci biir réew mi la ak eh, li génn réew mi mbokk yi ñu nekk fii nag ci penkub jumaay Touba. nekk fii ngeen gis noonu li nekk suñ ginnaaw muy bâche yi nga xamante ni dara waralu ko dudul euh, bisub xasida bi nga xamante ne Cheikh Mouhamadul taxa moo ko digle fii ci Touba fii ci jumaay Touba ak euh, li ko wër digal ko am satu Mbacke moom Serigne Chouaïbou ak mboolem waa axlu xasida waaye te Hizbut Tarqiyyah ñu ànd kook sëriñ bi ci liggéey bu am solo macha allah ñu nekk euh, fii nag ci penk bi ngeen gis noonu bokk taalibe yi depuis boobu ba tey ñu nekk fii ci wàllu bâche yi Eh, di ko fi amal ngir waajal li nga xamante ni mooy bisub xasida bi nga xamante ni gis nañ ne mbokk yi ñu ngi koy waaj fenn fu nekk ci biir réew mi ak li génn réew mi ñu feggoog eh, sëriñ Amsatu Jaxate mu doon kenn koo xamante ni ci sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou eh, ñu fas yéene rek indil leen vidéo bu gàtt boo xamante ni tolluwaayu liggéey bi waaye rawatina sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou taxawaay bi nga xamante ni amal na ko ci liggéey bi ànd koog sëriñ Youssou Diop ak mboolem waa axlu xasida xam naa rek foofu la ñuy dékk Amsa mu indi ñu leen rek ci ak leer leeral ci yitte ji nga xamante ni sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Souhaïbou amal na ko ci journée bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo ko digle fii ci Touba incha allah. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Modou leen di nuyu baax leen siyaar di nuyu waa DMC bi ci liggéey bu rafet bi xam ne dañ koy def waaw euh, ginnaaw bu ñu euh, ñaanalee sëriñ Mountakha mu yàgg fi ñaanal sëriñ Amsatu ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp. xam naa tolluwaayu liggéey bi moom yaakaar naa yéen a gisal seen bopp euh, ka naka bañ tàmbalee liggéey bi ba léegi lépp luy ñoŋal liggéey bi ak lu koy jëmee kanam rek moom ci ndigalu suñu am surtout ñu ngi ci su ko defee day mel ne daanaka ñu ngi ci daanaka mën naa ne bu doon lu ñuy jekk laal nañ ba di xaar bis bi agsi rek ñu def ko ni ko sëriñ bëggee su ko defee tolluwaayu liggéey bi nag moom daanaka lépp dañ koy tënk rek ci yitte ji nga xam ne si am surtout jox na ko liggéey bi bis ba nga xamee ne ci la sëriñ bi joxe ndigal li mu dugg ci noppam suñu am suta boobu ba léegi maanaam foo toll yitte ju kawe ju nit di jox mbir rek suñu am suta yitte ju kawe ju ko gën a kawe jox na ko mbir mi ngir ndigal li nga xam ne moom na ko si mun Muntaxa jox mu ànd koog euh, Sëriñ Yuusu ak is bu taraxee yëpp ak mboolem ahlu xasida yi suñu am suta nag yàlla da koo bindee mu nekk nitu pëseef di murit saarix bëgg Sëriñ Tuubaa lool wóolu ko yaakaar ko doyloo ko gëm ko amu ci sago wëlbatikuwaat nag amaat ak cofeel gu mu seq ak Sëriñ Muntaxaa goo xam ne ko cofeel gu yàgg la Sëriñ Muntaxaa it xam li si am sutu doon ci xasida yi ba tax mu jox ko liggéey bu sell bu rëy bii nga xam ne day mel ne na ko waxee woon ca bañ koy tàmbali ca ca waxtaan ya ma ne Sëriñ am sutu day sant nañ ko lu miin lu mu xam lu mu yàgg a loo xam ne yaakaar naa ne njuumte du ci am moom nag yàlla defaat ci liggéey bii mu mel ne Euh, man ci sama gis-gis ni ma gisee si am sutu keroog bi nga xamee ni ndigal li dugg na ci noppam ba léegi fooy foo fooy fooy xalaat ab tolluwaay rek si am sutu weesu na ko ci wàllu jëf boole koo itam jëfin wu sell woo xam ne ni mu jiitalaate si si yuusu ci liggéey bi nga xam ne lu ñëw mboolem luñ fi indi lu mu mën a doon lu ñëw lu mu rëy rëy rëy rëy bu mu wàcc ba ci démb yéen a ko bopp waa Touba ca kanam seen liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ko eh, xool rek daan waaye dana bu mu wàcc nañ ko daal sax bu toogee sax luñ ko jox ni da koy boole ci ne ko yóbbu socc sax ba fi ma waxee socc ak luñ ko mën di jox daal luñ mën a doon danaan nañ ko yóbbu ca liggéey ba ngir rek bëgg liggéey bi jàkk mbuusi galaas ak mbuusi ndox ak lu mu mën a doon ñëw di ko déclaré lu mu mën a doon te naan ñu ko yóbbu ci liggéey ba rek ci suñu yuusu ngir bëgg liggéey bi jot loolu loolu loolu àgg ngir bëgg liggéey bi àgg ni ko sëriñ bi bëggee mm-hmm. loolu nag maanaam bettu ñu ñu moom moom moom ndax moom noonu la mel noonu la ko yàlla bindee noonu la ko suñ tubaa def mm-hmm. mu mu mu ànd ak nag ndigal lu bees lu ko suñ moom mun taxaa jox loo xam ne mm-hmm. fi may waxee yow nii moom day mel ne bis bu set day mel ne ndigal li tay la moom loolu moom naa ko ci moom maanaam boobu ba léegi bi mu tàmbalee bis bu njëkk ba jàppoon naa ne nam ci nam ca doxee jëpp mu woon ne mën na koo weesu waaye boobaag léegi day mel ni gën nañoo jub bis bi te yaakaar naa juróomi fukki fan la ci ginnaaw wala fukki fan ak benn ci ginnaaw waaye day mel ne bis bu set saa soo xëyee daal day mel ne tey jii la ndigal li ñëw nga xam day mel ne moom te yitteem jëpp mooy ne ko sëñ bi amee ni ko bëggee kon day mel ne kooku kon mel na ne jox na yitte ji dayoo boo xam ne jox na ndigal li dayoo boo xam ne maanaam ku moom mi koy dund mënoo koo xam kon nag loolu day mel ne lu aaja leeral la ba nit ñi xam ne moom daal xam naa ne la ko ci sëñ bi digal moom ma nga ci ma nga ci te jort nañ lool ne la ci sëñ bi dig mm-hmm. fokk mu teg ci loxoom ñu ngi koy ñaan suñu borom defal ko tawfeex ak ñu ko ñu ko ak moom ñëpp lañu ci sëñ ba digal ñu defee ko nañ ko bëgg tey séentu lañu ci sëñ ba dig te xam ne noonu lañ ci tege loxo wasalaamaaleykum ci biir loolu euh, loo xamante nañ ko mu bi mi ngi koy waajal ci bis bi loolu léppee day tegtale ne maanaam lii sëriñ Muntaxa wax ne lu waaye def ci xaside yi moom nga koy defal mm-hmm. loolee da koy firnde gis nañ ne fan yi ci ginnaaw ak jamono ji yëpp mm-hmm. sëriñ bi mi ngi koy waajal ci ci ci koom-koom mi nga koy waajal waaye mi ngi koy waajal it ci ay ay mbind yoo xamante ni mi ngi koy génne ci ndigal li ndax lépp ndigal luñ la jox soo dee jëfe ndigal la lépp luy rafetal njëfin wa da nga koy boole ci biir ndigal la ndax suñu ndoxaa moom am njàng la woote ak yëkkati xasida durus ko yaa ngi dégg léegi nag xasida desu ko jàng mukk te binduñu ko kon loolu mbind moomu day dikkaat ci rafetalu ndigal li la ci jublu ndax ku xam mbind xam suñu am sutu xam ne moom yaakaar naa buñ doon jóor fii li nga xam ne bind na ko ci loxol boppam yaakaar naa buñ ko doon jóor fii yaakaar naa bu bu ñu fi tasi ñëpp kenn ku nekk bu ñu joxoonu xasida mën lañ laa jox xasida gum kon loolu day mel ne kon moom bind ko ak jàng ko jàngale ko xirtal ci nit ñi loolu moom daan mas a nekk ab liggéeyam te loolu moom mooy ab liggéeyam fépp daara joo dem daaraam joo dem ni ma koy waxee ci daara yi Sëñ Saliou daara yi Sëñ Amsatu joo dem soo xoolee sa càmmoñ da gis daara ji nga xam ne ñaar yooyu mooy mandargaam moom daaram yëpp ba daara joo ci dugg daara jàng bu timis jotee yet nga xam ne xasida xasi kër këru xasida la kon day mel ne rafetalu ak cantuk ak xiruk ndigal li mooy mbind mi nga xam ne dañ koy bindaali xasida yi jébbalu ale ko sëñ bi loolu day duggaat ci biir ndigal day duggaat ci biir rafetalu kuñ jox ndigal muy seet nu ndigal ba ndigal la gën a gën a rafete ak nu mu ko gën a neexee nu mu gën a baaxe mu defee ko noona loolu daal moom ñu ngi ko ci yokk beneen bi ci desit mooy euh, pësseefu nosin wi nga xam ne moom la ko suñu am sut nose maanaam lu xasida moom xam nga da da am lu noo xam ne fi ne na ko waxee woon benn buum la doon defoon woo kon day mel ne am nañ pësseefu buñ mën a tànk ci suñu am sut boo xam ne jartu naa ne ko xool ci moom ni ko suñ bëggee dina ko amee noonu loolu rek mooy mooy mooy wax yàlla ñu ci yàlla yóbboog jàmm te suñu am sut ñu yokk koo ñaanal ndax wax dëgg yàlla euh, baat bi dafa tuuti nii ci waxin waaye baat bu rëy laa koy waaj wax nii mooy jàmbaar la waa jàmbaar dëgg la waaw sëñ bi jàmm sëñ bi jàmbaar la lool jàmbaar la lool laa wax sëñ Amsatu jàmbaar la lool waaw waaw macha allah ci kàddu yu tënk yu mat la yooyu mbokk yi nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen di des ti fii liggéey bi lépp loo xamante ne ay wàccaay la yoo xamante ne loxo xasida ñi ngi koy amal ak euh, isbu tarxee rek ñu fas yéene ànd ak de di tel leen ko nees tuuti kon ak suñ yeneen élément waaye fii fii la ñu yemandeek yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu